ñëw mufti bi am na solo ci Sénégal te ñëwam nekk na lu rëy parce que dañu seetlu ne jamono bi am bi jafe-jafe amee ci Palestine ba tey ci taarix maanaam ci histoire ñu koy nettali ba léegi Sénégal bokk na ci pays yi nga xam ne ñoo nekk grand défenseur di peuple palestinien César Arafat la woon ba tey bon nag bu ñu toogee ba nga xam ne def nañu Jérusalem capitale bu Euh, religieuse capitale spirituelle capitale ak ni ko mëna a bu Palestine ñu né dañ ko wara a dañ wara def exposition bobu Sénégal bokk ci pays bi nga xamné dafa nek gay pays défenseur pour la sécurité waaye pour le peuple ak umma islamique Palestine ñëw mu nang ko président de la république bu Macky Sall nang ko o né ko nañ ko feete fi ci Sénégal ñëw bobu dafa nek ñëw bu am solo te ki ñëw Nekul nit ku tuuti moy Mohamed Hussein Cheikh Mohamed Hussein moy grand mufti de la Palestine bon autorité bi nga xamné mo moo gën ci Palestine moy ñew ci Sénégal tay wa ñew bi dana woné Sénégal pays jullit la dana woné Sénégal pays la bo xamné day jappandal lepp lo xamné ak néew doole bu ñuy def ci ñuy def pression ci ko Palestine dana jàppal itam diggante relation Palestine ak Sénégal ak umma islamique bi gëna a dëgër waaye dana wane tam Sénégal terre de paix la waaye teer la boo xam ne terre d'accueil la dafa ubbeeku ci monde extérieur képp ku fi mun a ñëw rek Sénégal dina la abrité jàppale la parce que politique boobu la doxal. lu tax célébré wuñu ko Palestine ñu defee ko fii waaw parce que Sénégal dafa nekk pays boo xam ne pays jàmm la te président bi nga xam ne moo nekk Sénégal bokk na ci ñi nga xam ne dañuy jàppandal jàmm askan wi jàmm jullit yi jàmm Afrique rawatina ñi nga xam ne dañu leen di néewal doole moo tax. comme fële mën na am ay jafe-jafe te ñu ñu ko indi fii président de la république bu Sénégal bokk ñi nga xam ne dañu nangu pour feete ko fii ci Sénégal programme bi nag euh, dañuy wax rek li nga xam ne moo ci gën a am solo gannaaw tertu boo xam ne danañ ko tertu ci altine muy le 25 ci aéroport bu Dakar Mohamed Ousseyn dana ñëw bu ñëwee dana rencontrer autorité religieuse fi nag chrétienne comme religieuse comme comme musulmane dana daje ak archevêque bu Dakar Euh, bu jógee ci loolu danañ ko tertu ci euh, président assemblée nationale Moustapha Niass na ko tertu waxtaan ak moom bu fa jógee dana def ay visite itam ci jàkk yi gën a mag ci Sénégal ajjuma ja dana julli ci grande mosquée bu Dakar waaye itam dana julli ci yeneen mosquée yoo xam ne ñoo fi nekk communauté libanaise bi ak ñi nga xam ne Mohamed Saïd Ba dana ko invité ci jàkkam itam waaye bu fa jógee dana itam dem fi nga xam ne mooy grand théâtre fa la ñuy defee exposition bi ngénte bés boobu dayal ko waaye itam am na solo ci ñëw bu muy ñëw lu tax sénégalais yi xam ne lii moo ko fi indi dana def conférence bu mag grand mufti ca UCAD 2 le 28 bu ñu jógee ci euh, conférence boobu ca le 28 nag président la république du Sénégal dana tertu ki nga xam ne mooy le grand mufti ca palais de la république dalal ko sargal ko bu ñu fa jógee nag grand mufti dana def visite seeti kilifa diine Sénégal yi dana dem Kaolack. Seti wakir Maulana Cheikh Ibrahim Nyas, dan dem Tiwaawoon Seti Khalif General di Tidiane Seydi Aboubacar bu fa jógee dana dem Touba seti ki nga xamne moy khalifu eh, Seydi Bamba fa ci ci senegal bu fa joge itam dana def yenen visite yo xamne visite yu ndaw lay don ci digeunte religion eh, ñi nga xamne ñuy ñooy kilifa diine yi kilifa aada yi li dal moy mi nga xamne mom la wara def bu ñu da am ben évaluation évaluation bo xamne ñu koy def ministre des affaires étrangères dana ko invité jox ko diine gannaaw dîné. bi ko comme yàgg jox ñu a fait une évaluation Nous ñëw mufti bi ban impact la am Sénégal ban ban dayoo la am Sénégal ak ban njëriñ la fi am.